def na waaw yàlla def na ni ba tey jii liñ doon sabab yëpp antu na ñu ngi nii daje ci esplanade HLM 2 ci commune HLM HLM na ku ko wax xam ni gox bu am solo la gox la boo xam ne xam nañ ko ci ci économie xam nañ ko ci politique xam nañ ko ci sport mais aussi xam nañ ko ci culture tey jii nag li ñu fi boole du dara lu dul kii nga xam ni moom mooy la grande dame Fatou Gueye Diop bu Mifa Couture ànd ak waa association des femmes soxali suñu gox nga xam ni c'est de brave femme yu nekk biir HLM ak Fabira bi nga xam ni moom mooy plateforme euh, bu nuñ koy waxatee sax plateforme am bi bay sa waar ñoom ñëpp ñu ànd ne dañuy jël HLM wane ko tey ndax foire ñëpp xam nañ ni fu ne mënoon nañ ko fa defee mais ñoom dañu ne léegi dañuy wane seen gox ndax comme ni ma ko waxee économiquement parlant HLM ñëpp xam nañ ko HLM tey kenn mënu ko wax te waxoo marché HLM 5 mu bokk ci marché yi gën a rëy waxuma la ci Sénégal mais ci Afrique de l'Ouest bu ñuy wax ci politique tam am nañu ay nit yu am doole yoo xam ne jot nañ fi am ay ministre rek lu ne génn na fi. bu ñuy wax ci côté sport tamit ñu am fi ay ASC yoo xam ni lu ci mel ne ay moom sa réew lu ci mel ne ay Baye Gaynde ak yeneen ak yeneen HM5 ba tey ji ASC HLM bi nga xam ni tey moom moo représenté ñoom ñëpp jël coupe du Sénégal ba pare tey ji nekk ci Ligue 2 ñu koy ñaanal mu accéder Ligue 1 incha allah foire nag ku ko wax wax culture wax tourisme mais wax aussi. lii nga xam ne mooy njënd ak njaay tey jii ku xool suñu plateforme bi nga xam ni village la village artisanal mën nañ ne lu ne mi ngi fi te ñu ko def nag du ñenn ñu dul soxna yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk HLM am am am am am am doole lool ñu leen di ñaanal lii nga xam ne sabab lañ ko yàlla leen ci yàlla defal ndam yàlla lépp jar léegi nag du ñu def lu dul rek bàyyi kàddu yi kii nga xam ni moom mooy la grande promotrice di faa Gueye Diop Moi am ay kàddu rek pour déclarer officiellement l'ouverture de la grande foire des HLM yàlla na doli jamm jàmm yàlla doli xewal doli xéwal ci dara jaar. bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ma len di nuy di len ziar yéen ñep di len jox waccu way di lu sen teway di rafet seen way ni ngeen ma taxawoo ma len ci sante di len ci gërem nak lu benn mën ñaara ko ko dak waye lu ñaar mën mbolom ñok ko dak te def na gis na ni ngeen ma taxawoo yeen ñep ndax kenn ku fi nek tok mën na ne boma mënul jur mak nga ma fuf waye kenn ku ci nek bi ma sa kër tok waxtaan ak yow da nga ma déglu ci ak man commencement ba fay donc aw ma fay aw ma fay aw ma fay suma amone leneen lu merci lu gëna ëpp merci lu ëpp jërëjëf naa leen ko wax ndax su ma taxawaloon foire bii takk bâche teg sama table gisuma leen duma foire kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ziya di leen awma daal lu awma moo sax bu ma leen wax parce que vraiment dama kontaan maa ngi leen di ziyaar yéen ñëpp di leen sant yéen ñëpp di remercier nag ñi jàpp ci bés bi macha di leen remercier ñoom ñëpp particulièrement nag ànd suqali suñu gox bi naa si jité di présidente bi may vice présidente bi bi ma tàmbalee lii boobu ba tey ñuy def luñu mën ak luñu mënul suba ak ngoon deux heures du matin sax dañ koy wax téléphone bobu ba tey kenn ku ci nekk sa xalaat lepp lo am lépp lo xamantene soutien la ci man luy demal yëf yi kanam bobu ba yaangi ci jugo ci benn yoon di remercier ñëpp sans exception di remercier ki nga xamantene nak mom munu mako ñak bañu remercier munu mako ñak bañu tudd parce que dafa nek mag bo xamantene ni mag bo xamantene ci man mën na ne sama digënté ak mom duma ko wax sax nak chat baaxul muy madame Mal mi mën na ne bama ko xamé taxu ko yàgg ñu bokku ben bokku ben koñ dend ben kër mu nek nit ku baax yalla boole mak mom moma mak mag waye mak mom sama digënté ak mom yalla la ko sédel li nane à suivre nak sama diggante mom dama koy def à suivre nak ci baaxul di remercier ñep sama digganteeg ak nasi mom yalla la ko sédel liñ daan à suivre rek dama koy def à suivre nak dañoo sék leneen luddul door association kon dama lay nane remercier di la remercier di la remercier waat waye xam nga man xamna di gërëm di sante ñep ñi ci japp di sante plateforme Bay sawar, bi Fabira jité mu nek nit ku bax nit ku humble nit kuy partagé mën naa ne lii su ma ko taxawalee ba am ci dëgërlaay moom ci la bokk ndax bi ma demee biroom seeti ko du c'est la première fois ma seeti ko mais bi ma demee biroom seeti ko lii yëkkati ma bi ma demee fi ma war a taxaw yëpp li ma war a def yëpp daf ma ko décortiquer benn par benn parce que moom ma ci njëkk moom ma ci jiitu moo ma ci ëpp expérience li mu ci xam kaar bi sax xamuma ko ci mais daf ma ibbil ay buntam ne ma parce que yëf yi fit rek la du dara teg ma ci yoon kooku aw ma sant aw ma aw ma fayam dama naan ko mag ji nekk fi de waaye xam naa ne xolom mi ngi fi ndax suba ba tey mi ngi jokkoo ak man ma koy sant nag di ko gërëm di ko jaalale ci ci ci ci ci porte parole ah di koy maa ngi koy jaarale ci porte parole nga jottali ko madame la présidente waa Ilimane mbay maa ngi koy jaarale ci yow nga jottali ko présidente di leen sant nag di leen gërëm di sant tamit euh, maire Tàkku Si maa ngi koy sant di ko gërëm parce que dafa ànd ak association waa ànd sukkali jaboot boobu ba tey maire Tàkku Si sama yaay jooju jàpp ci moom tamit conseil bu mu xam wax na ma ko di partager ak man day gis dara mu dëng sax mu woo ma ne ma faatu du nii nii la mu ne ko waaw pap waaw mama noonu lañ koy defee incha allahu rabbin mu di ma teg ci yoon ci suuf la may jël di ma teg ci yoon maam maman maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér di la ñaanal lii nga xamante ne sumb nga ko sa gox yaak ñi nga àndal yàlla may la ci lu kawe sa njort xam naa ne yàlla defal na la ko ci sax waaye mu gën a kawe sa njort di leen sant yéen ñëpp nag di leen gërëm particulièrement di sant koo xamante ne nag moom mi ngi soog a ñëw léegi nii ah, suñu papa di suñu lépp di suñu xarit di suñu lépp <laughs> moom bañ naa ko ba dama ko papa papa papa ba may loolu <laughs> ah di ko di ko ziyaar di ko taxaw waaye ndax xam naa ne démb li mu wax man rek la def dina mën a déplacé wu ñëw ba ci yow donc def na ko Touré Mandi Mour yi yàlla na la yàlla fay li ngay def ci HLM tamit yàlla na la ko suñu borom bi fay waaw monsieur monsieur Mambay Dieng ñi ngi lay sant di la gëreum sa taxaway rafetna na particulièrement di di remercier papsi ñi ngi lay sant di la gëreum parce que sa taxaway rafetna na wax expliquer na ma lepp nu mu démé ñi ngi lay sant di la gëreum sa taxaway nak si euh, groupe ci euh, FENAF HLM Ya na la yalla may lu kawé sa ñort gis nañ sa gis na sa taxaway ci man te ma ngi koy rafetlu bu baaxa Ya baax té xamna dinañ gëna waxtaan inshallah rabbi ñaan ngi euh,

toog di maa ngi lay sant di la gërëm di la ziar jërëjëf. damay jëkk wax auzu billaahi mina seytaani rajim wala xawla wala xawata illa billahi al di gërëm di sant nag audience bi yëpp bàyyiwuma kenn parce que su ma damay juum ah di wax ne mënuñu ubbi mu ko te waxuñu ki nga xam ne jàpp ci mbagg suqali jaboot ba mu taxaw. bu ma neexee ma ne suqali jaboot ñi ko juddulu tey dañ fee ne muy kan muy président Ousmane Touré moom mooy mooy offrir jigéen ñi ay formation balaa kenn ne man damay dem wuti ji xaalis da ngay xam ci li ngay wut foo jaar boo xamulee fooy jaar doo fa mën a wuti moom la fi nit ñi war a jaar ba wuti xaalis foofu la ñu gasal mu boole ñoo koo xam ne nag moom la ñuy wax Habib Sall HLM bare nay association bare nay organisation bare nay GIE mais defe naa ne bu ñuy conté benn coopérative moo fi am yàlla ak Habib Sall moo tax HLM am coopérative te nag jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk takku lool doon ay Amazon ndax tey buñ la jàngalee ba pare nga jël sa diplôme teg ko ci tiroir ba defe naa doo tekki dara ñoom dañu taxaw li leen jàngal ñu tari ko

mais xelam doy ko waaye guddi bu bu nekk dafa may woo di ma laaj ay conseil même bu fekkee dafa wax ci panel bi dara sax dina ma woo laaj ma ndax li ma wax ci panel bi noonu la wala du noonu kooku nag xale la bu loxoom setee dina mën a bokk ak ay mag euh, ndab ñun daal dañuy gërëm di sant waaye nag leneen loo xam ne daf ñu fi indi muy loo xam ne dafa raar foire bi dafa am formation ci biir en sécurité alimentaire sécurité alimentaire loolu duma ci dugg formateur bi dina ñëw léegi wax ko ndax waroon naa commencé depuis 16 heures waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo tax loolu am te musul am ci biir foire organiser nañu formation ba tàyyi mais ci biir foire PENOA PENOA plateforme des femmes moom moo tax mu am lëkkaloog ak USAID ñu lëkkaloog nag ak suqali jaboot ñu bugg ko offrir nag jigéen ñëpp formation payante la de waaye kenn fayewu ko dañ koy def fii ci biir foire bi kenn ku nekk jëriñ ci lu tax ñun dañoo kenn ki ñuy meññ dafa yaatu dafa généreux muy Ousmane moom moo ñu meññ moom lu mu am maye na ko moo tax ñun bëgg nañu alal lool de waaye fi ñuy sosoo moo tax mu ànd ak ngay dukkure mii nga xam ne depuis boobu ba léegi ñooy ànd di ñu jàppale Ngagne Doucouré jël na fi formateur bu jógee ba Belgique mu indi ko héberger ko këram mu formé ñu en savon kon nag macha allah foofu la mën a yem maa ngi gërëm ñëpp nag di leen sant di rus kii nag wax jéggalu ci guddaay bi ndax bu ma doon wax daal defe naa ne du fi yem di mun naa wax toute la journée waaw parce que développement yoo mooy yaatu moo tëddee noonu wasalaam maa ngi ñaan nag ñu commencé ci bisimilaay terminé ci alhamdulilahi rabil alamin jërë leen jëf waar yàlla dogal tey moom moo fi waroon a teewal boppam waaye yàlla dogal mu jiite délégation bi nga xam ni moo nekk ca foire ba ca Italie mu teew fa teewal fa Afrique mais aussi teewal fa senegal gépp loolu moo tax mu waral mu ni ma

d'abord le premier magistrat de la commune des HLM nga xam ni moom ci loxoom la ñuy teg bi mu joxal population bu HLM di nuyu également l'ensemble des autorités coutumières et religieuses kenn ku ci nek ñu ngi lay wàcce ci sa di aussi képp koo xam ne nii nga fii tey wala sax nga amoon yéene teyala fi kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la wàcce ci sa wàccuwaay et eh, sunu teewaay fii nag lenn rekk la jàppale ak accompagner sunu rakk sunu jarbaat sunu jigéen faatu géy nga xam ni olof day wax ni gunge ka ngay gunge xam na fa mu jëm ka ngay gunge doo ko féete ci ginnaaw ka ngay gunge doo ko féete ci kanam

ndax jigéen rek ci initiative yu mel nii mooy permettre yow soo defee formation ñu encadrer la ba yàlla dogal nga mën a produire nga am espace boo ko mën a écouler te ci espace yi rek la mën a doon kon macha allah la présidente Fatou Gueye gàcce nga la amaa yow alors di ko wax nag ni lii mooy li nga xam ni moom la plateforme Bay Sa War di def maanaam former informer encadrer accompagner ba yalla teg la ci ay tank yo xamni ni tay bu ëllëgee yalla nañ la dégg ci foire yu mag yi ak ci aduna bi yëpp te inshallah allah soretul mi ngi ci sunu kanam ndax yaangi ci yoon wi et di ñaanal aussi képp ko xamni ni exposant nga tay yalla dimbali la ba li nga fiy am wala li nga fiy yaakaar yëpp yalla defal la ci lu romb sa njort yalla nako yalla def sañ nako mën nako yalla nako yalla def et di Mbolo mbooloo la grande foire internationale des produits africains bi nga à l'horizon nous avons le amal monument de la renaissance africaine nga avons fait Fatou Gueye de bokk na ci nous avons organiser ndax plateforme Bay Sawar la bokk une foire internationale boo xam ni nii tey yàlla dogal na ren ji di quatrième édition le Maroc et le Congo sont nekk pays invités d'honneur yi kon avons fait ni tey Afrique mooy nekk à l'honneur Afrique tey mooy wanewaat boppam ci ay jigéen ñu gëm seen bopp kon tamit foire boobu ñu ngi ci woo ñëpp di leen xamal ni aussi tamit képp ku bëgg a bokk ci plateforme Bay sa waar sunu bunt ci HLM mooy Fatou Gueye donc dañuy ñaan rek say xarit say am di jàmm ak ñi nga xam ne yéen bokk association yéen ñëpp nga encadré leen yóbbu leen ndax yaakaar naa ni kuréel gi tey mi ngi fii toog tey ci HLM on a décollal décollal <laughs> délocalisé donc la plateforme Bay Sawar ak son bureau yëpp tey indi ko ci HLM te loolu yëpp nag Fatou Gueye yow yaa ko waral macha allah yal na la yàlla lafal cat di nuyu ñëpp di sant ñëpp li naroon na jógee nag ci plateforme ci présidente Fabira bari na lool waaye xëy na jotaay bi moo ko dul matale waaye su fekkoon te ni woon am na beneen baat. bu présidente Fabira di wax bu ëpp yaa baax yal na la yàlla defal ndam kon dinañ ko wax ndax yow tamit sa yar sa teggin sa fulla sa fayda wane na ko kon tamit yaakaar naa ni lii rek wane na ko ndax nee nañu butéel boo bëggee xam la muy xeeñ ubbil saañ ba kon saañ bii tey li butéel bi xeeñ lépp mi ngi ci yow macha allah yal na la yàlla defal cet di sant ñëpp di gërëm ñëpp. te suñu borom bu baax a baax julli ci sang-sang yi di sant sama yaay bu baax a baax di sant sama baay ba ci àllaaxira maa ngi leen di ziar soxna yi ci nekk ak sa wàcc di la jox sa wàcc waay macha allah laf cat yow laf cat rek lañ lay wax ndax xam nga lu tax yow yaay vice présidente ànd bokk soxla suñu gox donc su dee présidente jéego bu ma def dama ko ànd ak yow man ak yow kon ni nga ko waxee xooyal naan wala xooyal tuur ca rek soow lañu xooyal naa ànd bokk soxla suñu gox la fa nekk mooy xooyal naan wala xooyal tuur kon may remercier waa ànd ko soxla suñu gox yéen ñëpp ca kaw ca kanam ci lu baax laf cat ci yéen ñëpp faa yow nag mention spéciale à toi ñun nii la rek ànd bokk soxla suñu gox xam nga lan la lu ñu jëlee ji fële da koy indi fexe ñu à ce que mu avancé tout le monde avance te loolu mooy ay jigéen ñuy ànd kon faa liñ la mën a waxal ñun xamuñu ko man ak yow nee naa la xooyal naan ñun ak boo ànd bokk soxla xooyal naan wala xooyal kon laf cat yàlla mi nga xam ne mooy sàmm yàlla na yàlla sàmm yàlla mii téye yàlla na yàlla téye yàlla miy defar bés yàlla yàlla defar bés yi ànd bokk soxal suñu gox ca kaw ca kanam miy faa ca kaw ca kanam ci lu baax yàlla na ñëpp am jàmm jërëjëf. participé ci foire bi euh, ñu fa yéene ci représenté tailleur yi di leen ndokkale yéen ñun fi fekk di exposant yi waaye di ndokkale ki nga xam ne moo ko organisé ak ay partenaire partenaire am muy euh, GIE ànd suqali suñu gox nest li ma bëggoon a wax ci mbirum tailleur yi mooy tailleur dafa am benn place bu ko waa HLM may boo xam ne day xëyee jóge këram ñëw yenn sa HLM fanaan HLM donc yéene sunu njaatige mais njaatige boobu ki ci jiitu mooy monsieur le maire yaakaar naa donc bu nu ñëwee danañ gërëm monsieur le maire ci yëg bu mu ñu yëg ak yëgal bu mu ñuy yëgal dafay faral di ñu yëgal lu bari loo xam ne ci ni am na yéene def ko fii ci HLM. te jàpp na niu mënu ko def te jàpp euh, tailleur yi wuñ ko ci donc ñun ñoo tiji tijji suñuy loxo encore pour kilifa yi nga xam ne ci HLM mais surtout euh, membre yi nga xam ne ci nii ay tailleur la ñu bir biir HLM te gunu ci association parce que dañu affilié wu ci benn fédération bu fédération nationale des professionnels de l'habillement ñu gën ko xam ci FENAF FENAF président Gora Aaj moo ko créé woon depuis 1994 mi ngi fii Sodida kon loolu mooy ci commune des HLM la bokk ba tey donc bu ñu fiy organiser ñun ñu am fi cellule euh, yàlla baaxee ma membre yi juboo ci ni nañ ma def président bi dama ciy sant yàlla parce que sunu bunt doon koy tijjil ñi nga xam ci bëgg nañu adhérer ngir ñu mën a ànd liggéeyandoo pour euh, réussite tailleur fii ci HLM donc looloo tax gërëm bi ñu gërëm soxna Fatou Gueye du am app parce que dañu jàpp ni manifestation yu mel nii dana tax liggéeyu tailleur yi gën a feeñ ñu wane ko donte nag am na ñeneen ñuy exposé fàttewuma leen ñu nekk ci cosmétique beeg ñeneen ñi fàttewuma leen ak coordinateur bi xëy na waaye comme que euh, lépp yëre da cee ànd am na solo lool ñuy tudd tailleur yi di tudd tisserand yi di tudd aussi euh, teinturier yi ndax FENAF ñooñu la ëmb donc di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal euh, foire bi nekk foire bu mucc ayib. mu bari njariñ lool ci ñi exposé ak ñi am yene exposé yenen édition yi di ñew parce que je pense que bi moy deuxième édition mais dana amat sûrement yenen édition yu gën di yaatu comment première édition waaw ba parce que dana tax ñi ñi xam danañ ko wat donc objectif bi moy at mu nekk Sénégal gi yëpp wala aduna bi yëpp xamni démb maa ngi koy wax am na benn benn euh, benn jigéen bu jógee Kinshasa démb mu ne man dégg naa HLM am na foire ma ne kon message bi mi ngi passé donc objectif bi mooy communication bi gën di jàll at mu nekk ñi ñi xam ne kat faa Fatou Gueye dana ko organiser tailleur HLM yi danañ ci gis seen bopp ngir mën a wane li nga xam ci ñi ngi koy liggéey ci biir magasin yi nga xam ni bu ñu amul occasion génne ko du duñ ko gaaw a gis donc euh, ñaanal leen une bonne vente ñaanal leen un bon séjour euh, parce que je crois 72 heures Là. et puis à très bientôt incha merci beaucoup merci HLM Vision aussi. wa taalaa wa barakaatu mbokk yi bi nu musuloo ci seytaane sant yalla jul ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar wax ji mom na daanaka farankulaay na ba pare li ma ciy wax moy ci Fatou Gueye ak ay moroom yi mu andal ak sen foire bi di ci naan yàlla yàlla musal leen ci seytaane yàlla ci leen lu defaru làmmiñ a ko defar lu yàq làmmiñ a ko yàq yal yàlla musal leen muccal leen asalaamaaleykum wa rahmatullah wa wa barakaatu moom mi initié affaire bi ba pare ñëw teg ko biir HLM kon nag Fatou Gueye Diop merci beaucoup di remercier le premier magistrat de la commune muy Moustapha Diop nga xam ne kër koy dugg rek dafa am borom kër comme moom mooy kilifa wu HLM bi ñu ngi koy remercier bu baax di remercier nag ñi fi teew yëpp naa si ak waa ànd soxal suñu gox Fabira bi nga xam ànd waa plateforme Bay Sa Waar waa FENAB bi nga xam ne si moo leen jiite ak sama xarit bi ñu wax Assane nga xam ne ça fait presque 32 ans yoo xam ni ñu ñaar ñoo àndoon di liggéey ci benn association bi ñuy wax AFSID di gërëm population wu HLM yi nag plus particulièrement ñi nga xam ne ñoom ñi ngi seen buntu kër yi fii ñooñu ñu ngi leen di gërëm te di leen baalo ak encore di remercier exposants yi yëpp ñëpp ñi nga xam ni associé nuñu ba affaire bi mën a jàll ñu ngi leen di remercier waa Firi moom bàyyiwuñu leen di remercier Pape Meng bu baax directeur général waaw partenaire officiel nga xam ne moom moom daf ci jàpp-jàpp bu am solo sax di remercier suñu président bi fi jógee muy Ousmane Touré ñu ngi koy sant di ko gërëm ku lim juum nag Mambay Dieng bi fi jógee ñi ngi lim ñi ngi remercier ñëpp autorité yi yëpp mais nak dafa am ñaar ño xamni ni foog ñu remercier leen kenn ki muy mom ci mom muy faali ñaar bi xamni mom moy moom présenté di gëreum ñëpp comme nuñ koy waxé à chaque fois l'objectif c'est de travailler ensemble té lool mo waral suñu teewaay jappalé ko té di lancer un message ci population HLM nañu gëna faratal farataal doomi koñ nañu gëna faratal ñi nga xam ne dañoo ngir liggéey ngir seen koñ ndax loolu lu am solo la réew mënut a développé sans ñi nga xam ne ñoo fa dëkk kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne lii du yam fii nañu koy ànd chaque année di ko liggéeyandoo comme ni nu ko bëggee bëgg ñëpp gis ci seen bopp comme ni nu koy waxee gërëm nga ñëpp sant nga ñëpp ñun nag duñu def lu dul ñaanal ñi nga xam ne ñoo di exposants yi kenn ku si ne la nga fi indi yàlla na sunu borom def mu jeex tàkk ba ko fi indi sàkk booy ñibbi day vide nga xam ne ñëpp rek dinañ ci gis seen bopp bu nee ñu sawar a ñëw que la fête continue ñëpp am jàmm jërëjëf. jërëjëf.